bëgg naa. waa fay naa la indi. na tey. waa sant yàlla bu baax. daal bu fekkoon nga Diourbel nga tëggoon ay xale. démb nga daw ñëw Ndakaaru. waaw mais Idi ginnaaw bu ñu sant yàlla jullit yooyu sant suñu ñaari waajur. waa di la sant vraiment di sant Omar Saliou caméraman di sant Mbaye Babacar xam na yéen ñett yàlla moo ñu boole man ak yéen comme lu ma waxoon téléphone wax rek vraiment am naa tardivement ci yéex a continuer ak yow te lépp ñàkk a déggante la woon mais yàlla moo ñu bool loolu yàgg na barke Serigne Touba pare waaw jéem di mu jamono caatu nekk sama rek di ko ñaanal jàmm taw fi waaw kon génn si de Katy ak Sokh la ñu xaaraat si saal waaw taxawal nañ saal Bambey boo yëmbal boo yëmbal taxawal saal Bambey ñu ngi koy préparé stade Iba Mar incha allah non naa suba lañu am date bu neexee yàlla suba waaw profité nag sant waa Diourbel production yëpp amoon seen sant waa Njaareem sant waa Dakar ñëpp sama xarit ñoom Cheikh Ndiaye Ousmane kii sama xarit mi ngi jógee Mbour kii Galas Ndiaye mi ngi Pikine sama kër xarit bi Pikine fii bu na ñoom Cheikh Diaw ñoom Mbaye Sarr ñoom Sowru Assane Ndiaye Gibson amul seen fay man ñaari mag laa am dama leen ñaanal saa bu nekk jàmm ak tawfeex Sowru Fall manager aw ma fayam waaw vraiment sant sama yaay nag sama yaay aw ma fayam képp ku nekk Diourbel rek sant naa la rawatina sama papa Etienne Ngom Baara mu na jël daal Alphasi ak ak sama doom day euh, Ousse production mu war a organiser deuxième jour corté ma lay invité pour nga ñëw incha allah rabi yow sama xarit nga. kontaan naa mais sant naa yàlla sant sama yaay aw ma fayam sant sama Moustapha Ndiaye. Irio kontaan naa ci yow. macha allah jërëjëf Aliou Idy. Nada